bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi lamin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokk judi bokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër cheikhul xadim ci kër cheikh mahmadu muntaxa ci ndigalam ñëw fi ngir jot leen ay kàddu yu ndigal yu bàyyi ko ci moom ñu ñaanal sëriñ bi nag mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu bëggee liggéey sëriñ Tuubaa lépp mu def ko ni mu ko bëggee ndigal li nag mi ngi ko jëmale ci waa Tuubaa ci kanam ci njiitalu sëriñ Abibu Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne mooy seen jëruñ sëriñ bi woolu ko léegi ba mu ñëw mu yëkkati kàddu cant ak ngërëm teg ko ci loo xam ne ko noo ko jàllale ci mboolem mbooloo mi ak mi ñu ciy dugal seen alal ñëpp ne ko maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax na ma leen ko waxee woon ca tàmbali ba ba nag ni waxtu ne loolu laa gis mooy neewoon naa leen amul menn mbooloo moo xam ne ëpp naa ci mu yaakaar seen mbooloo mi yaakaar jooje nag nee na saa su ma xëyee day gis du ko gën a firndeel ci loolu nag xam na ne am murid du wàcc waaye waxtu ne yéen a ngi ci ndigal waxtu ne itam yéen a ngi gàttoon digalu sëriñ bi. ndax lii nga xam ne euh, mbas la moo xam ne suñu borom moo ko fa wàcce te nag jekk mas sa jug ci àdduna di am ci jamono yonent yi ba na ci jamono sëriñ bi peste ba kon loolu yàgg ci àdduna la ba suñu borom mi ko fi indi te na ko sëriñ bi waxoon rek mbindeefum yàlla la moo xam ne fu mu ko yebal mu dem fa waaye waxtu ko jeexalee mu jeex nee bi mu agsee itam ba mu yëkkati kàddu yi ndigalam ak lam ci jëf gis na na ngeen ko gàttaloo ci ndigal la ndax li ngeen ci def mën na juróom fukki million wala lu ko ëpp lépp ngir dëggale ko ndigalu sëriñ bi ak baatu sëriñ bi ñaanal loola nag moo tax mu ngi leen ci sant bu baax ci iweesu yëpp nag li ngeen def ci dëkk ndax loolu lépp ñaanal lu ko waroon la muy lay jëm ci wàllu forage yi nga xam lu ci paan lu ngeen ci man da ngeen ko gàttoon def ko tàmbalee ko ci màggal Tuubaa gi ba ci fan yi bi amaatee jafe-jafe ngeen jënd ay pompe yu bari defaat ko ci ak lépp lu jëm ci lu leeral dëkk bi ku romb ci mbedd yi xam ne eh, seen jëf feeñ na fi neen loolu lépp nag ki ngeen koy jëfal mu Serigne Touba teg ci bëtam kon mu ngi leen di sant bu baax leen gërëm tey gën dal xel ci liggéey bi ndigal li nga xam ne joxaat na leen ko it mooy fii wér di gi tolloo xam ngeen ne dafay yokk ndax jeexagut yëg ngeen ne hôpital yi ne ci biir dëkk bi am na ci ñoo xam ne fees na ba am na ci ñoo xam ne ci biir kër yi lañ leen dugal. Euh, téye leen fa buñ leen téyee ci biir kër yi nag te amuñ dund bu leen fa fekk dana metti ñoom ndax boobaa euh, falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf bala ngaa mën a jàmm yàlla sax faw sa biir dara da ci ne kon nag sëriñ bi xam ne loolu jamono ji xat na na mu bëggoon a yëkkati ci euh, alalam yëkkati ko def ko ci ngir xam ne képp ku yewoo ci dëkk bi rek boo amee gàllankoor war nga nga ci xat-xat lépp moom la war noonu la ko yéene ginaaw bi nag mu xalaat ne seen mbooloo mii kat alali Serigne Touba la jëfi Serigne Touba la itam moo tax mu waru Serigne Abibu mu dikkee itam mu ànd ak ñi mu ko seqal di Serigne Abdoulahi Mbacké ak Serigne Abdou Fatah Gueye ko jiite ak Serigne Fallou Ndiaye ak Cheikh Mouhamadou Mourtada mi di doomam ak mboole ñi mu fi fekk. sëriñ bi joxaat ko ndigal ne ko ñooñu nga xam ne ñooñu leen tey ci biir kër yi laa bëgg la aju ci seenu dund ak la leen di war ba tax li nga xam ne wàllu kër du sant nañ leen ko ñu mën koo def mooy bañ a génn ci biir kër yi ngir di wàll ñeneen ñi sëriñ bi jox leen ci ñoom itam ñu ànd ci mbégte ngir xam ne li ñuy def lépp dañuy dàkk waaye nag li jógee ci sëriñ bi mu sant leen ko boppam mooy la gën ndax ndigal kat li muy baax baax la ci ëpp solo mooy ñu sant la ko moo gën nga di ko laaj lii nag loolu leen sëriñ bi sant kon mi ngi leen di gërëm leen ñaanal bu baax ni ngeen yàgg jëfe ndigal yi ko jëkkee rek ndigal lii itam ngeen yàgg koo jëfee noonu taalib yi nga xam ne ñoo ci dugal seen alal itam sëriñ bi ngeen di sant ngir xam ne ku ci jëf sa ku ci ku sab dërëm dem àgg na ci Sëriñ Tuubaa ndax li ngeen di laaj ñëpp teg nañ seen bët ci fi ngeen koy def moo tax xelam xolub taalib yëpp dal ci moo tax ñëpp itam sawar ci jëf ci ngir xam ne kuy jëf boo soñu mu àgg ci bi kon nag yàlla yàlla sax leen ci bu baax li ci des mooy di soññ nit ñi rek ni ko sëriñ bi santaane eh, bëggoon na ci sax yëkkati ay waaye mu ne naa ko soññaat nit ñi ñu xam ne itam ndigal yi nga xam ne santaane na ko eh, ba joxe ci ndigal ñu di ko wattandiku ci biir jullikaay yi ndax eh, kon dem nañ ba ñëpp yéene woon nañ bëgg ñu ubbi ko ba yàlla def ñu ubbi ko nee bu soñoon itam buñ ko ubbee itam nit ñi sàmmonteeg li nga xam mooy tax wér gu di wàlle waaye nag ni ñu koy sàmmonte ci biir jàkk yi ñu ne ci biir marché yi nee na ñooñu itam nañ xam ne eh, liggéey dafa mënta ñàkk ndax jàmm yàlla bokk ñu ne ci biir marché yi nañuy sàmmonteeg li nga xam ne ñu yor wàllu wér gu yaram ñu ngi leen koy wax ngir bëgg weer di gi bañ a wàlle ndax képp koo xam ne wàll nga ko sa mbokk tey ko kat na nga xam ne loolu bàkkaar bu rëy ji kon loolu itam nañ nañ koy wattandiku ci marché yi di ko wattandiku ci biir kër yi buñ ko defee rek yàlla mën a cee def tawfeex euh, te xam ne fii ci dëkk bi euh, taalibe yi sëriñ bu soñoon ñu aarut sàmm ndax xam ne seenu njàmbar xam seen positif ndax lu fi ne rek seen positif ak seen jom ak seen seen yitte moo ko fi def kon nag euh, mu ngi leen sant leen gërëm di leen ñaala te xam ne ni mu ko waxee woon rek lépp lu fi mat fàggu rek sëriñ Tuubaa fàggu na ko lépp lu fi mat a ñaan ci dëkk bi it sëriñ Tuubaa ñaan na ko ku gis li fi xew lépp ni muy demee. lu ci ne da nga xam ne ñaanu Sëriñ Tuubaa jiitu na ca mm. ba tax mu woyu fi ndax eh, boo demee ci xaddis yi dañuy wax ne sarax mën naa bañ a fekk waaye waaye dana woyofal mm. waaye dëkk bi tam ku gis jàngoro ji mm. xam dëkk bi ni mu bindoo da xam ne ñaanu sëriñ yi moo ci tabbi waaye kon nëgë ni da nga fekk ay bakkan yu bari rocc kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi di fam nuyoo bi ak siyaare bi di ko teg sa loxo nga jàllaleel ko ci kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko ak wér te àggaleel ko ay yéeneem ak i naalam ak ak i mébétam ak bëggam ci liggéeyal Sëñ Tuubaa lépp yàlla nag ko suñu borom àggaleel ni mu ko bëggee te ànd ko moom ci bakki Sëñ Tuubaa di sant bu baax a baax nag ci ndigal li nga xam ne jot nan ko mu jóge ci moom jaar ci kii kilifa ak mbooloom Touba ci kanam du Serigne Habib bi Serigne Habib di wax ne mu ngi gën a sant sëñ Touba moom mbooloo mi bi leen sëñ Touba yëgee ba woo leen di leen liggéeyloo ndax li li ñu ko wax léegi rek dañ doon dàkk waaye lii nag day mel ni ak bëgg boppam gu mu yëkkatil boppam waxal na ko boppam la kon liñ doon def di dàkk lépp tey day mel ni jam nan wax ji it du weesu rek samih naa wa atax na dégg nañ ko te fas nañ ko yéene jëfee ni mu ko waxee ni leen ci bëggee te ni leen ko fas yéenee jëfe incha allah ni nga ko bëggee ndax dafa mel ne doon doon ndàkk tey nag lii mooy sag bëgg te sag bëgg dong lan bëggoon a xam ba def ko di wax ne nun taalibe yi nan gën a takku ci sàggal sëriñ bi nag ndax sëriñ bi sàggu lislaam la te sàggal na lislaam ndax bi jafe-jafe amee la cay wàllu lislaam wàllu sàggal jox na ko ko dafa mas a wax ne nañ nañ ko doxali nii ngir bëgg mu woyof na mu waxee ñu koy doxalee ba mu demee ba gis ne war naa gën a yaatu gën na koo yaatal bi mu ko yaatalee nag sart yi mu ci teg nan ko ci jàppale defe ko nam nu ko diggalee ndax sun njariñ jàpp tax ndax tawat ji noonu yaakaaruñ ci musal suñu bopp lii ñuy diggal sëñ Tuubaa lañu yaakaar mu musal nu ci ginnaaw sëñ Tuubaa lañu yaakaar mu musal nu fi te mooy sëñ moo fi nekk sëñ Tuubaa nag kàddu yam wax ne def leen ko nan ko def ndax bu ñu ko defee dana mucc kon lu mu nu ci diggal nan ko def ndax lépp loole mooy sun njariñu tey mooy sun njariñu ëllëg moo na mën a fegal itam looy tawat jii jëfe sa ndigal jëfal ndigalu sëñ tubaa képp moo mën a tax tawat ji doon lor noonu te yaay sëñ tubaa kon li ñu fas yéene mooy ndigal loolu na ñun ñëpp ni ko sëñ Bassirou waxee jot li ko nan ko dégge noonu te fase ko ni te defe ko noon yi ndax ci la suñu njariñ nekk ci la suñu njariñ tey nekk suñ suñu njariñ ëllëg nekk te mënuñ musal topp ndigalu sëñ bi moo nu mën a musal kon nu ñu sant bu baax te gërëm tey ñaan taxawaay bu yàgg lool ci tuur sëñ Abibu ak ci waa Tuubaa ci gépp ñi ngi lay sant te di la ñaanal a baax lii nga xam ne euh, digal nga nu ko nga gën ñoo ñaanal ba waxtu wu ne ba saa su jugee jëm ci noonu rek fekk na jekk nañ ci def ko te defe ko na nga ko bëggit te daje ci sa ngërëm jërëjëf Mbacke. waaw ah, tolluwaay bi ñu toll ak li ñu ci dox ak li ñu ci weesu war naa daal sama xel bu baax ci li ñu daal suñu xel bu baax ci li mu jëm ndax lépp sëñ bi noppi na ci fàggu loonu lépp lu si ne dafay fekk na nag la mu fàggu li mu fàggu ne il faut que lu ne dañuy dox bàgg ci rek ni jëti cët waaye faggu na lu mat a faggu faggu kon loolu ci loolu nag am na yëqin ci tolluwaay bii ne noom ci yeesal suñ cant cant gu rëy di si yeesal jaayant di feddi suñu laxasaay waaw di di di di di sant di sant di am mbégte mu am. ci mm. tolluwaay bi. Mm. nga xam naa ne nii nii nii rek lu ci ne. Mm. suñu tool noppi na ci. waaye lu ci ne dañuy dox ba ak ci fii lu toll nag. alhamdulilah mën nañ cee dolli ko yaakaar. mën nañ cee dolliku yaqin mm-hmm. mën nañ cee dolliku lépp mm-hmm. nga xam ne sëñ fàggu mu lépp mm-hmm. waaye tolluwaay bii leeral feeñal lépp lépp mooma doon lu ci dara lu ci ne wommat la boo xam ne dañuy lu ci ne lu war a romb dañ koy romb lu war a àgg nu seet digg ko ñu ko war a diggee foofu rek lañ toll lépp mooma waaw kon nag li ci li ci kanam lépp nañu gën a fedd suñu ndax gën koo jox suñu lépp gën koo nekkal ndax nekkal ko mooy nekkal yàlla xarfan bi xarfan mm-hmm. nekkal ko nga nekkal yàlla sëñ mm-hmm. bi nekkul woon ci dara lu borom ci borom nekkoon dig bu yonent bi ci borom rek la nekkoon mm-hmm. na kon nañ ko nekkal buñ ko nekkalee rek la ci lépp suñu yoon nekku ci peut-être fàggu fàggul noonu ko waaye dan dan dana taw feex bi dolli ko ci noonu nag ak ndam yu ay ay yu nuy yu nuy ci moom. Mm-hmm. loolu rek moo ci moo moo moo ne ci kanam. war nañu suñu tubaab du sa yaakaar mukk. dama mosut sa yaakaar Sëriñ Tuubaa. waaw dama mosut nekk mosut sa yaakaar ko yàlla bu yàlla sa barke yàlla nga àgg fu nga jëm rek loolu ñu ne dama bëgg ngeen xam sama xol sedd na gën naa daal sama yaakaar gën naa dolli ko sama yàqin gën naa wér ci sëriñ bi alhamdulilah loolu kanam rek la yàlla ñu ànd yow rek ñu ànd ko yow rek ñu ànd yow rek sant nañu baax a baax yàlla yàggal la fi loolu rek barke wajalilaahi maskani tubaaba misras mi abi jaayi xayri ma nabaat